Abdoune Dia Birame Mbissine Sène quart de finale Ngor Mbine Dia Birame Mbissine Sène ñoom 100 pour 100 nga toog combat choc Ngor Mbine Dia bisin jella tanku Ngor dura bisin Sine seen na Ngor dangan waaw assalamu asalaamaaleykum mbok internet yi suivre Lamyn TV nuy nañ len jaajeufal nañ len han ah. tay nak ni ngeen ko gisee ni ñu ngi fi ci Nianing ah ci Petite Côte bi digënté mbour ak fi nga xamantene ne moy Zoal Joal ñan ñing lañ ñëw tay sét ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Pibéry Pibéry nak ndeysaan nek ben lieu ba nga xamantene ay xalé yu xara ñoo fi ne di liggéey li dem ci folocage sérigraphie ak yeneen ak yeneen ah dañuy dugg ci biir jox gaay micro bi ñu gëna a expliquer li nga xamantene ne moy seen liggéey ay tableau yi ni ñom ñëpp dañ koy job ah cameraman ñu dugg ci biir Pibéry jox gaay ñu yaatal affaire yi ni muy démé jaajeuf heure fii mooy pivots yi gis ngeen ko nii flocage sérigraphie reprographie vidéographie affiche flyers étiquette ah carte de visite carte de membre vidéographie site web affaire yooyu yëpp dañ koy job Aïcha gars ñu jox ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Ngom liggéeyee fii ci pivots yi mu détaillé leen li nga xamante ne lépp moom lañuy ñuy defar fii nii ci ci place bi ah. teel ñu ko doon euh, expliqué leen gars yi. Mm-hmm. waa Sénégal waa jaspora surtout. Mm-hmm. ñuy suivre euh, Lamine TV di ko béggee bu baax. donc fii mooy Pibeurian ah. donc euh, li ngeen di gis nii mooy support yi ñuy liggéeyee yëpp. Mm-hmm. ay flocage t-shirt. moo nekk nii ay dimension bu ne am na taille bu ne ci xale ba ci mag. li aussi ay tableau la yu ñuy tirer PVC seen photo pour seen photo salon yeeg yoyu donc li da ngeen koy am fii euh, càq même pas une heure de temps ngeen jot ci ah voilà légui euh, aussi bu loolu wesso am nañ euh, li nga xamné moy mooy mag li aussi côté hôtel yi la information day génn chaque mois donc magazine mensuel la voilà c'est une première aussi sur la Petite Côte Voilà le la pibori defar restaurant yi am ngeen aussi lepp li nga xamne moy menu mhm. menu yaa ngi nii dañ koy defar mhm. tout ça voilà dañuy defar li yeb menu ainsi de suite ay panneaux publicitaire ay panneaux publicitaires carte visite. Mhm. ay bannières. Mhm. ay euh, autocollants. Mhm. ay porte-clés ay cases. tout cas dañ koy defar fi ni ci support ak yeen support ngeen di bind parce que dégg naa dañuy bind ci ay auto sax. wa dañuy bind ci auto dañuy bind ci setu même dañuy bind ci verre aussi ak ci vitre. ay cases ay cases ay plateau ay assiettes. loolu nak aussi mu ngi euh, gëna festif Saint-Valentin bi. ñi nga xamne dañuy bëggante dédié Lamine TV benn. kiiwam rek jox ko fansam jox ko kaas nako mang la ci béggee bu baax bu ñëwee fi dañ ko koy bindal donc voilà c'était ça emballage bi aussi am nañ benen euh, ki support bu ñu liggéeyal moy jërëjëf bo leen ñëwee bu ñu leen jaayé ba paré pour avant ñu leen koy livrer mom mo koy euh, emballer jox leen ko ci anam yu mucc ayib élèves aussi pour impression ay photocopie yoy noonu. bien sûr photocopie dañ koy def mhm. euh, impression numérique mhm. lépp li nga xamné moy tirage imprimante. aussi dañ koy def A4 a trois a cinq ba A2 aussi dañ koy def mooy nga xam ne affiche bi gën a ngànd A2 bi loolu yëpp dañ koy def voilà aussi euh, maillot Sénégal yi ngeen gars yi na ngeen ñëw waa bi am étoile aussi disponible na bëri. ah jaa jëf. waaw di bëggewaat lamin TV bu baax ah, ci visite bi. Mhm. Euh, ci confiance bi aussi. Mhm. parce que gis naa gis nañ liggéey bi muy def bu baax ci Petite Côte bi. Mhm. ñoo ngi koy jaajafal mu doon ay Lamine TV yoo xamante ne. fu ne lay dekk. adresse bi ak numéro téléphone waaw adresse bi fii euh, mu ngi nekk en face. Euh, centre de réadduction. Ouais. centre de réadduction donc numéro téléphone bi mu ngi nekk 77 275 96. 75. fii ci Nianing fii ci Nianing. dispo diggante ak mbuur ak Mbour waaw diggante Mbour ak Joal. diggante Mbour ak Joal. fu waay nekk ci Sénégal aussi mun na commander ngeen livré ko. exactement fu waay nekk ci Sénégal boo commandé rek ñu taxaw ci incha allah lu gaaw. jaajëf jaajëf